le deux bi mu wax ne day dem munu ci dellusi si foogoo mun na ci dellusi si. Euh, ni ma xamee Macky Sall bi ma xam kii Macky mii jëmmam honneur moo ko gëna lu ne. honneur moo ko gënal lu ne ak lu mu am ci àdduna soo gisee lii am dafa nekk un homme chef d'état libre nanguwul jël boppam laxas boppam tënk. teg ko ci loxo benn chef d'état moo koy ut comme parrain wala benn réew mu koy def comme parrain loolu su ko nangoon lu bëri du am mais il a été un chef d'état libre conscience am tranquille xam ne Sénégal la jiite ñoom ñoo ko ko jiite am confiance ci moom lépp acte bi muy posé c'est dans l'intérêt de Sénégalais ma ki ma xam man xam nga nit nag mën naa soppeeku du doo xam mais Macky sale bi ma xam le vrai Macky bi ma xam honoré moo ko gënal lu mu am ci sa. waa dialogue national bi si vous vous entendez mën naa xool ma euh, ñoo ñu ne ko ah dinañ euh, ci conclusion yi mën nga toog jusqu'à l'élection du nouveau président mu am sax ay ñuy xeltu ci wàllu yoon ñu ne euh, selon l'article 36 de la constitution le président en exercice dafay toog ba ñu fal keneen léegi pourquoi revirement bi mu def nii taxaw def amul waxtaan ci dialogue xam nga dialogue dañu toog di dialoguer mu woo Sénégal yépp ñenn ñi ñëw ñenn ñi ñëwul tey ñii ñëw nekk ay sénégalais mais ñenn ñi ñëwul aussi nekk ay sénégalais ça veut ñii ñëw ëpp ñu dara ci ñi nga xam ne ñëwuñu gënul ñu nekk sénégalais dialogue la dafa dialoguer ci ñii ñëw muy dialoguer ak ñoom da leen di sóoraale mais ñii ñëwul aussi fekkee dialogue boobu nekk ay sénégalais même bu fekkee ne ñëwuñu. da leen di sóoraale ci bépp acte bu muy posé ndax moom Sénégal yëpp la jiite te il n'est pas candidat ci wàllu droit nag man may mun a dama commencé di réer xam naa daal ni duraa mel alxuraan meloon noonu alxuraan benn nit boo weex alxuraan doo indi beneen mbir boo xam ne nit ñi comprendre ko man droit dama yaakaar ne forme la noo ko xalaatee rek noonu nga koy waxee parce que chaque jour yaa ngi dégg ay professeur de droit xaw ma dañoo mokkal nañu seen droit bi wala mokkaluñu lii la ñu wax tey suboo waxuñu ñu wax ñeneen ñu wax leneen man du ma comprendre mais li ma xam ci Macky Sall honneur bu mu am ci li nga xam ne lii yoon may ne ko du ci tegg virgule ndax ku gëm état la conseil constitutionnel nag ñoom ñooy les juges des élections dialogue wax na waxtaan nañu juboo ji kàddu tënk nañ ko jox ko ko rapport bi bu egsee mu xool lépp jël par lettre saisir leen sûrement ak li ma xalaat ci loo xam ne li fi passé yàggul loi yi ñu fi woote assemblée nationale te mu nekk ay loi constitutionnelle loo xam ne ñu nii je suis à mon troisième mandat may mun bul fàtte ne mooy buy sama ñetteelu mandat assemblée nationale ñu indi loolu loolu lépp conseil constitutionnel bi mu ko jëlee teg fale def ci tënku pour wane ne dafa respecter justice réewam ak justice Sénégal te mu amoon yeneen droit nag defu ko.